ويمات بعدين بخيت الدكتور باي يطرق ويقول لي بين بريك بين يسبق علي تاو بين بريكي كبر بيت القران سيد مريم سيد القران يا خمن الله عدوبة القران يا مريدي ومينو kita dalam aspek yang dalam Quran, dalam Quran, di abdi dengan guru aku juga buat terus mengikuti di sendal bawa. Tengah yang lebih dari seluruh negeri. Kami kerja tidak berjalan dengan penuh. Jangan terlihat dan muzakarah dengan musafir jawatan. Lelak dan ramai kita ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇବା ଇଟ୍ରାଇ ଲୋକ ଜାଗା ko waxtaan bi ak sëram ay waxtu ci téléphone na Seyda Mariam ba ñu d'accord ci loolu ñu ñëw jox ñu ndigal ñu ay soldaar lañ rek ñu ñëw pour exécuté bi nga xam ne d'accord nañ ci di ko loolu nag taalibe yi surtout Ansaaru bi nga xam ne ñoo organisé gàmmu ñu ngi gërëm ñëpp képp koo xam ne def ko ci wala nga wax ci wala nga def sa yitte wala nga ñaan yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla yi ñëpp yàlla yàlla xool bu tëbee maanaam teel na yàlla fay. ñu ngi gërëm président yi di gërëm Babacar Sarr ak Bayroo ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom yëpp ci kàng bi kàng tey ñu jëm ñaar fukki kàng bi juróom ak yàlla ko bàyyi mu tolloog lim moom dudd dudd ci saa waaye ñun la bàyyi ko nag xam bi jeex kon nag tey jii incha allah ñu ngi tàmbali mooy li ñu di ko am toujours ci pays bi muy Cheikh Ibrahima Khoundoor Almarja xam ne moom la sëriñ bi daan jóge di dem comme ni ko Cheikh Thiagne waxee tey te lépp bàyyi lu xam ko taxaw ci am day ay seede am day gëy am day wax ñu toog ci kanamam tey pour mu roose ñu ci bàyyi dolli ñu ñu ñëpp ci ngëm yàlla yàlla ak yonent bi ndax liggéey bi yëpp mooy boo di def ay conférence di leeral laay di leeral téere yi di leeral xam-xam di yar nit ñi di yar taalibe yi di ko def fii di ko def Maroc di ko def bitim réew di ko def si ba Italie ba Amérique ba feneen gënoon a loolu ñu ngi sant yàlla ndax kii la boo xam ne kii la ndax moom décoration médaille la boo xam ne bàyyi moo ko yàlla moo ko décoré loolu nag balaa ñu kenn waru leen koo xamal ni ñëpp parce que moom gën a wante ñu ngi rafetlu taxaw bi taxaw ci gi. sëriñ bi Saawu Tijaan tontu Cheikh Ahmad Daam tontu Alxaajatullaahi xam ne ay morom la yoon boobu ba léegi moom muy continué di bay ci waar wi loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy seedeel di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér yaram li mu wax nag lu bëri nañ toog déglu baraam rek baraam loolu suñu baraam njëriñ ñu maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp te ñi woo Tentaja Ibrahim Mahmudud Betul-betul Muskuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh